Let's go. jërëjëf jërëjëf dama koy jaajëfal bu baax a baax xam naa dama koy jël yéen kàddu nga yëkkati tey fii ci Pikine. lii ñu bëgg a teg président Ousmane waxuma ne koy bëgg a teg mais lii ñu ko teg ci réew de 60 à ci Sénégal ça feebar bi nag yéen yéen a war a génn fajal seen bopp du dëgg du day dund bu ngeen amee malade du ngeen def yéen yéen ay génn yéen waa cité woon bi rek leen seen bopp lii li si des du suba lan ngay wax ndaw ñi ndax dañuy ji Sonko dañuy ji Sonko man sax damay du ko yoon du doon sacrifice incha allahu rabbi ñun ñoo ko war jërëjëf jërëjëf dañ leen di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne yéen a safoo ah, télé bu baax bi ba tey ñu wax ak yéen ñoo ngi xam ne moo di Pikine ah, Pikine jamono ji di yéen seen musique en tout cas ko gisandoo tey ñu toppal leen nga xam ne moo fi nekk di xew nga dégg kaddu yi nga xam ne moom la ñu moo di ñoom li ma xool damay xool aara ma xool lan moo fi nekk di xew yéen a ko jiit yéen a ko jiitandoo tàmbali nañoo taal pëndey tàmbali nañoo taal xamaguñu li xew en tout cas en tout cas gis xam naa dama leen di toppal fee li fa nekk di xew jamono gi dafa mel ni dañoo taal ay pënë waaw dañuy wax dëgg rek tax hmm. lii moom waa APR la ñun dañ ñoo autorisé hmm. ñu ngi nii di dox suñ soxla hmm. di marche ak policiers yi normal wante waa APR ñoo ñëw di taal lii di fi saltal ñu ngi ne la waa APR la voilà ñu ngi ne la ay nervi lañ ay nervi lañ fi ne di fi taal di fi saltal dinaa léegi waa kër Ousmane Sonko yi gis nga dañuy ànd ak policiers wante waa APR ñoo fi ñëw nag di fi taal suñu jugee nak dina nit ki borom fitna la borom nangam day yee fitna day yee nangam mm. xam nga li du yoon mm. li du yoon mm. ñu ngi ni marche buntu bikin ba fi ñu ñoo di fi def lii waa APR wala gis nga wa wa kër Sonko yi ñu ngi ne la ñuy dox nak suñu jamm ak salam wa aper nak di def nak fi mom la ñuy def chaque jour mom la ñuy def chaque jour jeuf gis ngeen yeena ko jissando fi benen wet bi yeena jiss ay pëna yo xamne ne la ñuy tal en tout cas ñi nga xamne ñoom la ñu gis ñu faree fi nga xam ne moo di Pastef wala yee Askan Wi wala ñi nga xam ne ñoo di manifester ñoom ñoo ngi féete wet bee waaye ci beneen wet bi mën nañ fee wax gis nañ fi ay pneu yoo xam ne moom lañ fi taal dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo faree si euh, dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo faree si Pastef li ñu wax ne ñoom du ñoom ndaxte ñoom euh, gis ngeen dañ leen encadré pneu yi nga xam ne mën ngeen nekk di ko gis nii ndaxte waa APR la loolu du samay kàddu mom ngeen dégg ñom ñu wax en tout cas yeen ko gisandoo li mo nek di xew fi nga xamne modi di Pikine en tout cas tal nañ ay pneu xamuñu kan mo ñan la wa affaire ñoo def li mm. yef yu bon yi wa affaire mm. yëf doomaraam yi gëna ñu ko def wa affaire ñoo ko def ay doomaraam ndax am ngeen sey firnde ñom ñep la ñi ngi dëkk fi ñom ñoo ko def ba ko wax ñoo ko def ay doomaraam la mo tax ñom ñu soxor fi leen wara jaar dañoo soxor mo dañ def ko wa affaire ñoo ko def dañoo soxor mo dañ def li mm. waaw soxor mo tax def ay jërë ngeen jëf dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la ñu wax dafa mel ni ne ñoom ñoo ñëwee fii lañ waroon jaar en tout cas li nga xam ne moom lañ mën a wax moo di ñi nga xam ne ñoom ñooy manifester gis ngeen ñoo ngi féete ne ginnaaw gi nga xam ne ñoo ngi dem si eh, la ñu gis si beneen wet bi ay saxaar wala ay nak loo xam ne dañ ko taal en tout cas lii ngeen gis moo nekk di xew fi nga xam ne. moo di Pikine xam naa ne gis ngeen yéen a ko gisandoo yéen a ko jisandoo lii moo nekk di xew fi nga xam ne moo di Pikine yéen a ko jisandoo yéen a ko gisandoo ñii di manifester ñoo ngi ci beneen wet ba nee na ñoom nii moo nekkoon seen yoon waaye bi ñu ñëwee ba fii dañoo gis ñu taal ay pëna ngeen dégg li nga xam ne moom la ñu wax ñoom li ñuy wax du leen lu dul ne ñoom ñu ndaxte ñëpp xam nañ ne dañ leen autorisé te ñoo ngi def li nga xam ne moom la ñu war a def ngeen dégg ñu ne waa APR bu Pikine ñoo ko def du samay kàddu nag kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon seetaan wala ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñoom ñoo ko en tout cas yéen ko gisandoo gis ngeen ñi nga xam ne teem mën na suñoo gis gis ngeen waa Yewwi Askan Wi wala ñi nga xam ne ñooy manifester ñoom ñoo ngi ci beneen wet bi naam jël nañ beneen yoon bi di dem waaye liñ leen mën a wax fii moom jàpp leen ne yéen a ko gisandoo lii moo fi nekk di xew yéen ko gisandoo fii ci Pikine bi ñu ñëwee ci benn wet bi ligne 49 bi day dévier ñi doon jaay aussi ñoo ngi dévier ngeen dégg ne ñi ñu jox euh, kàddu dégg ngeen li nga xam ne moom la ñu wax ñoom nee nañ waa APR ñoom ñoo def li en tout cas yéen a ko gisandoo xam naa ne damay daw demaat ci ñi nga xam ne ñooy manifester waaye liñ leen mën a wax moom jàpp leen ne ci benn wet bi mën nañ leen wax ne fii ci Pikine moom feu am na fii fii ci Pikine taal nañ ay pneu xamuñu kan la mais d'après ñi nga xam ne ñoo féetee fii waa Yewwi ñoom li ñu wax nee neen waa APR ñoom ñoo def li en tout cas ñun ñoo ko gisandoo est-ce que est-ce que mën nga ñoo wax li xew fii copain. man comprendre nga. Mm. dama ñun fii lañ dëkk mais lii boo ko taalee fii après ñun ñu dëkk fii ñun ngay sonal rek. Mm. ñu taal la ñu am taal suñu dëkk. ndax ndax xam ngeen ñan ñoo ko taal. Mm. Ah. gis ngeen li nga xam ne ñu dëkkee fii ñoom li ñu wax mooy dañu koy taal ndaxte ñoom fii lañ dëkk et aussi du ñoom du ñu nangu koo xam ne moo koy ñuy taal li nga xam ne mooy seen koñ en tout cas yéen na ko gisandoo jamono gi xam naa ne. damay woy topp li nga xam ne moo di manifestation bi topp li nga xam ne naam bàyyi naa leen si ginnaaw waaye gis ngeen li nga xam ne moo fi nekk di xew en tout cas dañ leen ko joon jox comme info xam naa ne dañuy woy delluwaat fi nga xam ne foofu lañu nekkoon moo di waa Yewwi Askan wala waa Pastef ñoom ñi nga xam ne ñooy manifester gis nañ leen ñoom yoon bee la ñu jël d'après les informations fi nga xam ne pneu yi la tàkk